ci oto yu yees yi industrie automobile bi dafa am mbir yu bari yu koy xaar loole yokk ci ñàkk kaaraange ci dawalkat yi waaye itam ci oto yi loolee lépp doon ay gàllankoor ci liggéeyu yile artisan atelier yi léegi yeneen i étranger ñu ngi ñëw ci biir capitale bi di ko def à notre place bi ci toppit amuñu moyen maanaam financement day manqué encore fu ñu liggéeyee site de recasement ñu ngi sant de passage le président bi ñu joxee la Zampa waaye Zampa rek doyul il faut mu am extension ñu yokk ko Zampa bi yokk ak yokk ci Dakar yokk tam au niveau national. ngir euh, saafara yooyu li jafe-jafe ñoom ñu yëngu ci wàll wi dañuy dal di teg seen gët ci jokkalante gi ñuy amal ci seen diggante muy solidarité maanaam dimbal. bi ñuy amal ci seen biir. ñi ko sekkal nga xam ne ñoom ñëpp bokk métier bi nu ñuy fexe ba mu am dëgg-dëgg jàppalante diisoo déggoo xàccandoo dóorandoo sellal liggéey bi. loolu yëpp lu ñuy war a waxtaanee la moo tax ñu naan transaction sociale nekkul rek wàllu jëflanteel euh, kii borom garage ak client waaye ñëpp ñu sekk garage nañuy fexe ba seen taxawaay mu nekk taxawaay bu mucc ayib te mu jural leen gëneel ku nekk booy ñibbi sa kër nga yóbbu dara. parce que xañ na amoo liggéey waaye ñin ko sekkal am na taxawaay bu ñuy taxaw ak yow doo rus. fii ci Sénégal koom gi jógee ci secteur informel bi dafa tax ñu bari ci askan wi dañuy liggéey waaye seen am-am demewul noonu li ko waral mooy sénégalais yu bari amuñu tàggatu bu ci war rawatina ci ndaw ñi ngir xeex nag lu ni mel ñu yëngu ci wàllu oto amal benn doxalin boo xam ne jàpp nañu ne dina tax mu am coppite ci wàllu koom waaye itam ci wàllu nekkin askan bi. mooy saafonte ak ndimbal gi ñuy amal ci seen diggante